as néew des ci lii di feetu Noël waaye nag bu ñu xoolee mbeddu ndakaaru yi xam ni sénégalais yi ñu ngi koy waajal bu baax. bon ñuy waajal feetu Noël feet boo xamante ne voilà tout chrétien mu ngi koy waajal parce que feet boo xamante ne fekk bu mag la pour tous les chrétiens ñu ngi koy def chaque année le vingt cinq décembre voilà xam naa ne tout chrétien boo gis rek xam naa mu ngi koy waajal quoi. waaye muy wane rek ne du chrétien yi kase ñooy féete lii di Noël jullit yi itam dañu koy féete fii ci Sénégal loolee di wane dialogue islamo-chrétien bi nga xamante ni moo fi am. Noël approche décembre ku ne xam na ni fête la bien vrai que ni sunu mbokk chrétiens yi ñoo ko moom mais fii au Sénégal dañoo am benn. benn benn cohésion boo xamante ne dafa nice quoi mooy mooy le dialogue islamo-chrétien boo xoolee man am naa ay cousins yoo xamante ne ay catholique lañ man julit la tabaski dañ koy féetandoo ensemble korité dañ koy féetandoo ensemble donc du coup euh, je trouve que ni c'est une belle fête fii fii au Sénégal je sais pas nag si yeneen dëkk yi mais fii Sénégal moom ñun dañ koy féete nice que ça soit ngay musulman wala ngay chrétien dëkk bi day gën a xaat dëkk bi day gën a day gën a am bouchon et après bon ce sont les fêtes. bokk na ci liy firndeel waajtaayu yooyu les festivités pâtissier bi nga xamante ne li muy xamle mooy bûche de Noël yi jamono bii mu ngi jaar bu baax a baax. je suis cuisinier bon expérimenté en pâtisserie bon actuellement mën naa naan bon lu ñu soxla gars yi ñu ko comme par exemple affaire de farine yooyu noonu pour les bûches de Noël voilà yokkuñu ko prix bi mu nekkoon foofu la nekk ba léegi voilà te gis naa ne bon ñu ngi koy waajal parce que gis naa. li ñuy produire production bi day dem du trop quoi bûche de Noël yi moo tax ma naan gaa ñu ngi koy waajal bu baax a baax. mbeddub Dakaaru yi ak xumbaay gi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fi waaye itam décoration bi mu ngi wane ni ñii di sénégalais yi ñu ngi waajal feetu nowel yi bu baax.